salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu maa ngi leen siyaar yéen ñëpp seen mbokk la woon Modou Ndiaye Baye Fall moo doon jotal si ci kàddu ko italien yi ndax dafa doonoon loo xam ne lu ci jaadu la eh, moo taxoon ñu jël ko nii nañ nañ ko ci jàllale ndax ñëppay xool vidéo bi loolu lañ ci jublu woon bu loolu jàllee ñoo ngi woo uh, ñëpp ci daayira bi muy góor muy jigéen pour ñu jàpp ci xam ni liggéeyal sëñ Touba la lii nag lu ñu yàgg bëgg la tey la ko yàlla door a dogal ñëw fi nekkal sëñ Touba muy sëñ Touba sëñ Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te wér ah ñu ngi ci jàllale ci message bi di ci woo ñëpp ñu jàpp ci ndax liggéey gënu koo kawe ah, di ci di ci di ci woo mbokki taalibe yi nekk Italie yëpp di leen woo ci màggal gi tamit le 18 avril lay doon Milano incha allah eh, bu ko yàlla dogalee ñoo ngi ci ñoo ngi ci woo ñëpp ñoo ngi dellu di leen di leen di leen xamal ni liggéeyal liggéey la boo xam liggéey bu kawe la ndax comme ni ko sëñ Moustapha Diakhaté waxee léegi du ma ci nekk di ci jaaraat ah fii nag ñi fi nekk ci Sénégal mooy Serigne Saliou mii moo fi nekk tey moo fi représenté ba njëkkee ñëw am na ñeneen ñu ñëwoon waaye tey moom la yàlla dogal moo fi teew ah fii nag man maa fi nekk ak sëriñ Alassane mi tey ak sëriñ Abdou Ndiaye sëñ Modou Dia ñoo ngi dellu di siyaar suñu rakk ji tamit sëriñ Mamor ak soxna yi ñu àndal soxna Seyna. mbokki jullit yi mbokki talibe yi ñu ngi leen di siyaar kenn ku ci ne ci turam ak santam ci ni yooyu yëpp di jiital Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul rawatina ki nga xamante ne moo fi nekkal sëriñ Touba muy sëriñ Mountakha Bassirou. di ko ñaanal yal na yàlla guddal fanam te wéral cëram ak mbooleem taalibe yi nga xamante ne ñoo ànd ak moom ci liggéey bi mbooleem sëti sëñ Tuubaa yi comme ni ko sëriñ Moustapha waxee rek ndax sëriñ bi moom euh, jot nañoo yegg ci moom waaye ci ndigal loo xamante ne daa am fu mu bàyyi ko fi mu bàyyi ko nag ku ne xam na ko muy mbéy gay mbay mi nga xamante ne moo jiite liggéeyul ansaar ànd koog bëgg fàllu mi nga xamante ne ñoom ñoo nekk foofee ci réew ma doon nit ku ñuul ak mbooleem soxna yi nga xamante ne ñoo ànd ak moom di nit ku ñuul jàppale tubaab yi nga xamante ne ñooy woy tuub yi loolu nag ci ndigalal sëñ Mbaye Guèye Mbaye lañ ko amee ànd kook suñu mbokk taalibe yi nga xamante ne comme ni ko sëñ Moustapha waxee waaye bu ma tuddee sëñ Moustapha damay mel ne tudd naa mbooleem jotaay bi nga xamante ne ñoo fi àndandoo ñëw fi waaye it bu ma tuddee euh, sëñ Alsaan mm, sëñ Alsaan Jaxate mel na ne tudd naa mbooloo mi nga xamante ne mooy mbooloo ansaar te ànd ci liggéey bi ak euh, sëñ Moñ Njaay mi nga xamante ne ñoo fi nekk ak mboole mbokki taalibe yi liggéey bi nag comme ni ko waxee toog nañ ba gisante ki nga xamante ne moo fi sëñ Touba te am ci ak mbégte lool li tubaab di wax tamit am ci fierté bu wér a am ci tamit ak yokkute it bu wér a wér am ci tamit ak doyloo bu wér a wér ndax liggéey bi ni mu ko waxee rek waaye ab lantinoor lañ loo xamante ne dañuy jottali ay kàddu rek suñu jëwriñ yi nga xamante ne moo jiite nag liggéey bi muy Mbaye Gueye na nam ñu ko waxee woon ak nam ñu ko santee woon defee nañ ko ni ko sëriñ bi bëggee loolee it mu am ak jàppandal lool waaye ku ne xam na ni poroxaan ak tolluwaay bi mu toll nii nga xamante ne mbooloo murit mbooloo lislaam lépp dañ fiy daje si loolee lépp buñ ñu mënee dimbali ba ñu mën a jàkkaarloo sëriñ bi ba sëriñ bi teewluñu ba li ñu bëgg yëpp mu wax ko mu wax ko mu dégg ci noppam ba sëriñ si sëriñ bi indi na ci ay saafara saafara yi nag moo xamante ne ñu ngi koy liggéeyal waaw ansaar ci biir réew mi ak ci bitim réew sàkku na ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko fa nekkal ñu taxawu leen taxawaay bi ci war te taxawaay boobee kat nee na na ngeen xam ne mi ngi ko ànd ak yéen te nee na fu ngeen tëlee na ngeen ko woo mu mu mu mu mu jottali ndax loole it bokk na ci li nga xamante ne moom la sëriñ bi wax.